comme ni nga ko waxee rek tey je pense que li ñu fi dajale c'est pas la première fois mairie Hann Bel-Air à chaque fois que le mouvement nawetaan di dem finale nii la daan accompagner ñi nekk ci zone yi muy euh, équipe finaliste yi ñu dexal leen ay jeu de maillot joxe ay ballon trophée yi noonu lañ ko daan defeek le mouvement nawetaan tey nag 2021 ñëpp xam nañ ni saison bi eggul woon ñu koy eggali ba suba la la grande finale comme ni ñu koy wax entre HLM Maris ak Maris ak Maris ñu ñëw fi tey di def remise symbolique bi rek di ko jox euh, président Thiatia ak ndongo mi taxaw xam ni ce sont nos parce que bu ñu waxee le mouvement nawetaan ak la mairie dafa nekk ñaari entité ya nga xam ni toujours dañuy lëkkaloo parce que lépp lu ñuy œuvrer rek c'est pour motiver la jeunesse de Hann surtout la jeunesse sportive. di nuyu ami internet yëpp. voilà avant tout di remercier la municipalité si euh, li muy def chaque année bu le mouvement nawetaan egge si euh, final cette année aussi mu def euh, à l'accoutumée comme li mu daan def donc ñuy remercier le maire monsieur Babacar Mbengue di remercier son collaborateur fidèle muy monsieur Baro voilà demee ñuy dem si final boo xam ni finalu particularité bi moom bu am cette année mooy deux équipes yoo xam ni ci commune Hann Bel-Air lañ bokk mais géographiquement ñu xaw a nekk côté Maris muy une première mu nekk loo xam ne historique la avec le nouveau nouveau stade ak euh, première finale boobu mu bëri ay challenge yu si nekk pour la <coughs> pour la continuité bi nga doon wax léegi nii bon amul lenn lu ci extraordinaire ah defuñu fi lu fi kenn musul def jaaruñu fi lu kenn musul jaar boo yoree zone boo xam ne da fi fekkoon ay Dame Faye fekk fi tu peux pas être un messie wala nga def lu ñoom lu raw ñoom li ñu def benn année lañ defagum suba lay egg si kattanu yàlla donc on peut pas nous glorifier wala yëkkati suñuy mbagg li ñu defoon daaw mooy dañoo amoon obstacle yoo xam ne dafa daloon le mouvement nawetaan en an daf si si territoire national bi yëpp ñëpp arrêté ren ñu ñëwaat euh, l'ODCAV exiger ñu à ce que ñu continuer te ñun suñu mission la zone en tant que président mooy mooy jouer dañu jox benn mission ñu war ko accomplir donc loolu la amul lenn loo xam ne lu si lu si miracle wala extraordinaire courage bi xëy na mi ngi fi métit bi day am parce que tamit boo jiitee su dee day neex la ngay dem mérite du am quoi donc foog mu am ay ngay jéggi di jéggi ba yàlla def tey ñu ni jeex na suba mooy euh, final bi c'est ça. salaamaaleykum ami internet Mak TV ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ñaari zones yi nekk fii yëpp di nuyu municipalité bi di leen sant di leen gërëm ci. jàppale bi ñuy jàppale ci final bi waaw di wax ne nag lii moom wareef la rek parce que ñoom it seen devoir la ñuy def ñun en tant que zone tamit suñu devoir lañ def rek ba continuer ba finalu ba continuer ba finalu kon yaakaar naa tamit bon jàpp ci kaw jàppale rek ñoom jàppale nañ ñu ubbil ñu stade bi vraiment yombalal ñu lépp ba ñu mën a continuer waaw final jot na ñu jàppale waat ñu utal ñu ay trophée utal ñu ay maillot lépp vraiment sant nañ leen gërëm leen di wax sportifu yaraax yi nag nii la rek affaire bi amul secret liggéey la tey gis nañ USB li ko dal gis nañ ay sa yaraax li ko dal jeunesse bi nañ gëm seen bopp xam ne liggéey la rek parce que métti woon na trop zone ñu yaafu soon wala ñu yàmbar tey du ñu egg egsi fii ñeneen ñi àggalewul nag xëy na tamit dafa gën si ñoom rek di leen ñaanal déwén tamit seen nawetaan àgg si jàmm sant ñëpp gërëm ñëpp ah merci comme ni nga ko waxee rek je pense que mbir mi yëpp euh, affaire organisation la gis nañ ni mu demee daaw gis nañ lu bari lu ci am je pense que la mairie. municipalité bi ak acteuru nawetaan yi muy waa zone je pense que ci wàllu organisation dañuy gën a joxante loxo parce que président ngi toog nañu ak le préfet am na ci la nga xamante ni ñaax nañu ci joxe ay orientation mooy mbir mi mbirum organisation la gën a yokk sécurité bi euh, ba pare sensibilisation bi ci côté supporters yeeg équipe yi je pense que daal bu ñu déggee le sous-préfet du Grand Dakar li mu ñu wax bu municipalité bi téye le mouvement nawetaan te moom mi nga xam ni mooy autorité administrative bi jàpp ci je pense que dinañ mën a eggali nawetaan yi comme ni ñu ko bëggee organisation la te incha allah ñaan nañ lëkkaloog ñoom comme niñ ko doon defee rek ba mën a terminer suñu saison parce que eggali nañ ci jàmm ak salaam dañuy bëgg a entamer saison bi nga xam ni moom la ñuy euh, jëm ci kanam que yàlla jàppale ñu ñu ànd mais dans la mais am ci une réussite ba mën a eggali li nga xam ni mooy saison 2022 bi waaw euh, merci Ali côté technique moom sportif lu fait euh, joueurs yi di euh, gën a évoluer loolu peut-être euh, encadreur école de football liggéey à la base ba mu egsi fii ou bien les entraîneurs ñooy am mérite bi quoi ñun zone suñu particularité mooy organiser de des championnats populaires muy nawetaan donc violence yi amoon daaw moo ñu baare am nañ gis nañ secret bi tuuti cette année di ñaan mu améliorer Et de passage di saluer la la gendarmerie boo xam ne cette euh, fois si bi ñuy continuer gis nañ yenn effort yoo xam ni mu ngi ci ñoom dencoon nañ ko daaw ren génne nañ ko mooy baliser aux abords et aux alentours du stade ba nga xam ni su mat quinze minutes de la fin képp ku amoon intention dinañ la dissuader ba nga dem donc euh, loolu buñ ko donc continuer bi foofu la sens bi nekk du euh, final bi du dara mais fexe ba violence bi li ko doon indi ñu xam lan la organiser nañ fi tournoi bu mag. ak am ay trophées yu mag yoo xam ni am récompense yu mag te dañ ko doon jouer sans sécurité sans service d'ordre amul sa ASP ñu gis ne amul violence loolu nag dañ doon def avant première nawetaan yi mais bi ñu ODCAV ne eggal leen aussi ñu jël expérience bi ñu gagné si tournoi bi sotti ko si mouvement bi euh, gendarmerie aussi indi beneen facette moo tax doo fi gisa gisagoo fi euh, violence majeure benn détail moo fi amoon lekk c'est tout c'était juste des jeunes mais alhamdulilah euh, boobu ba léegi mais c'est pas le président encore une fois man du bëgg sax di wax nu avons une équipe quand je dis une équipe mooy le CD le bureau le le le mouvement nawetaan bi nekk les instances supérieures nga xam ne ñoom ñooy suñu miroir yi l'ODCAV l'ORCAV l'ONCAV de particulièrement nag euh, njiit boo gis dafa am c'est son homme de confiance son bras droit son conseiller muy ndongo bi taxaw tey je pense quatre-vingt-dix pour cent damay penser lu may xalaat pour def moom moo koy réaliser donc man euh, moom mooy moom mooy zone bi mën naa ni quoi franchement eggali beeg si xew ak tout tout tout c'est conseil c'est un conseiller boo xam ni sans intérêt donc moom lay àndal si liggéey bi ak euh, de passage aussi Maguette Diop mi ngi si def effort mais lui c'est l'homme boo xam ne tey mooy l'homme fort de la zone 7C mën naa ko ne saison bi ñu tourné nii en tant que président tey su amoon trophée bu ñu joxee moom doomu aadama bi lañ koy jox merci beaucoup question boobu moom su ma ko posé dina ma neex trop parce que ñun amuñu lu dul sport balaa may àggale nag di gërëm zone bi yëpp parce que président dafa baax rek mais tey suñu egsee fii rek zone bi yëpp la mouvement bi yëpp la xarit yëpp la sportif yëpp la yow mii am nga ci sa mot à dire baro ñëpp an beleer sport beda an ñëpp a ciy jàpp anciens yi fi jógee xam nga ñëpp ku si nekk yaa ngi ciy teg loxo pour que affaire yi réussir xëy na yooyu moo ànd rek ba yàlla ñëw affaire réussir mais ci football bi nag moom euh, je pense que ni jeunes yi il faut ñu ñëwaat surtout les jeunes dirigeants et puis ñi nga xamante ni tam dem nañ ba nekk mag ñu féetewu conseiller parce que football dafa laaj détermination tey équipe bu bëree ay mag rek mën na sooxee bu bëree ay xale mën na sooxe na mélange bi am xale yi ñëw jege mag ñi mag ñi conseiller xale yi xale yi téye bagage yi ñu fexe taxaw pour affaire bi dem parce que nag su ñuy gis ni asile mu ngi gisee démb mu ngi doon finaalu xam nga te yooyu yëpp. ëpp ñu ñu si dara ah parce que mbaaw dama koy wax le temps projet wu yaraax la jël réaliser ko parce que nag dafa am tamit ñu ko gëm mais su fekkee ni tamit ñun may nañ ñu sens jàppale ñu encadré ñu li mbaaw def Pikine def ko ñaari tali def ko ñun mun nañ ko def parce que suñuy nawle lañ te ëppale wuñu dara man daal damay gëm ne suñu mayee sens indi ñu ci équipe bi dénk ko gëm naa ni équipe bi fii mu nekk dina fi jóge muy Maris FC yi muy USB muy ASC Yaraax yëpp nañu dimbali jeunes yi rek jox leen parce que nag toll nañ si daal su leen joxee rek yàlla mën a def jàmm.